entretien kon mbokk euh, bismillah, numéro kon di professeur Moussa Baldé ministre agriculture l'Agriculture équipement rural ak nak ñu contexte bi contexte Covid 19 wala sax coronavirus tamit jëm ci campagne agricole monsieur le ministre ñu lay dëgg Nous ñu dans ci contexte euh, Covid 19 coronavirus monsieur le ministre tey département nan la l'impact impact boobule mbas ci wàllub liggéey bi. waaw jërëjëf euh, xam nga ni comme ni l'avons ko euh, depuis début 2020 ñu ngi une situation exceptionnelle avons bi yëpp dañoo jànkonteel benn maladie mbas. Mhm. tudd Covid 19 yëngal adduna bi.

donte nak indi nañu ay jafé jafé parce que Covid 19 limu indi ci jafé jafé manam même ay guerre mondiale mus ko indi. Mhm. parce que guerre mondiale xëy na dañ doon xeex ci ben région ben région ñu ngi liggéey. Mhm. mais dafa jékki-jékki aduna bi yépp ñu wara a presque. Europe euh États-Unis tëju même Asie lolu indi jafé jafé yu euh ba Sénégal tamit jot nañ dund fi ay mesures de l'état d'urgence euh, bu ñu président de la république gis na ni comme mesure pour faire les mesures à caractère sanitaire dañuy indi jafe population mu un programme de résilience économique Madame dimbali sénégalais Dimboli, dimbali euh, nit ñi plus de 140 000 tonnes de ak ak te loolu macha monde rural gis nañ ci sen bop mhm. parce que vous xolé ci un million de ménages Sénégal xëy na moitié bi ci monde rural la jëm. Mhm. programme de résilience économique la la am page bu économie. Mhm. soutenir le secteur informel la euh, transporterie, euh, l'hôtellerie le tourisme. ak ak même agriculture parce que agriculture tamit ci programme bi euh, de résilience jël nañ fa lu met 34 milliards pour fay ay opérateurs pour ñu mëna taxaw mëna sobu ci campagne agricole bi ñu doon ñam mhm. parce que dañu leen doon yoral ay bor ay ati at mais programme bobu en tout cas tay presque fay nañ leen ba li ci dess mhm. ci xaliss bareetul mhm. té lolu vraiment géjoon na fi am euh, damay tambali foofu pour maintenant li nga wax manam campagne agricole bi Amgen ni mbas mi dafa Sénégal ñu une campagne de la campagne de commercialisation archi. mais yàlla dafa ne campagne bi maanaam traite bi dafa gau, gau te bari euh, février fin février fait jaay de na Sénégal parce que les ren chinois dañ ñëwoon ak doole joxe rapidement nous avons 400 000 tonnes Le prix de guerre de 300 francs le kilogramme donc mais comme nous ma croyons, nous avons ñu gisee ne mbas question civilisationnelle pour humanité bi. Mhm. maanaam nit ñi même si nous faisons des ñu nous leen des leen seen kër Nous avons a mhm. par exemple des pays comme l'Inde nous confiné leen ak Asie ñu bëri ñu commencé tiit parce que ñun manam li ñuy dund ceeb. Hmm. li ci upp Asie la Le hmm. président de la république bobu la commencé ci discours am yi de ko hmm. dafa né tégon na programme autosuffisance programme national autosuffisance en riz. Nous def nañ ci djégo yu am solo mais résultat final bi que le Sénégal pas autosuffisant. mu sant ñu ñun ministère de l'Agriculture. léegi nañu yeesalaat programme boobu mhm. ñu fexe ba fii ba at yu néew ñu am autosuffisance mhm. mais xam ngeen ne loolu mois de mars la woon mhm. mois de mars mooy période bi nga xam ne dañuy préparer nawetu ren bi donc nawet bi déjà mun nañu xool leen en tout cas déjà nawet bi programme boo xam ne day am day dooleel euh, suñu euh, maanaam euh, production céréale maanaam lu ñuy dundee moy ceeb mooy dugub mooy mbokk et cetera. Mhm. loolu moo tax ministère de l' agriculture donc dañu toog ak techniciens yi ak acteurs yëpp naam mënuñu woon def réunion mais fee ba d' accord ci benn programme programme bi lu mu tëdd ni mu tëddee mooy Sénégal suñu production céréale mu ngi toll at yi wees mhm. daaw ak ren par exemple deux millions sept cent mille tonnes. Si ñu am sécurité alimentaire il faut que nous ayons 4 millions de tonnes de céréales. Mhm. Nous, sur suñu programme Nous dinañu au moins production céréales Sénégal 3 millions de tonnes Ce bëgg nous avons mu 1 million de 500 000 tonnes 1 million 500 000 tonnes actuellement nous avons presque 1 million. Nous mhm. avons dugub ñebbe en tout cas production céréales ak jéem maintenir aussi production Nous avons un programme bi a budget. de 60 milliards. Nous demain, président de la république daf ñu ci d'accord ni budget 40 milliards la d'accord ni milliards pour campagne de di ce mu parce que mois de mars nous ñi commencé à waaw Sénégal légui ren du am jiw euh, chinois ñu ngi jënd etc. mais ñun mois de mars dañu wo acteurs yi mhm. ñu ne len ma wax len lu leer exportateur ñu ngi nous, des yi ñu ngi euh, ak ñi nga opérateur semencier. Mhm. man Sénégal suñu jiw bi mu parce que jiw bi bu gën a réew mi chinois ak seen xarit sénégalais yi nga xam ne dañuy exporté mhm. dootuñu exporté mhm. puisque Sénégal bu béyul gerte mais doo leen exporté opérateur semence yi mhm. lii mooy seen business man peut-être bu ñu amul jiw gerte mun mun nañ ma dindi ci gouvernement mais damay delloo fu ma nekkoon mais ñoom loolu mooy seen liggéey donc ñoom tamit il faut que ñu góor góor ñu ci semence huiliers yi noonu parce que ñoom tamit

joxe nañ ko ba ci sama ci li ma xam. Mhm. ji nañ yëpp. Mhm. Euh, ñu ne aussi président daf ñu wax ne comme yokk na vingt milliards am nga vingt milliards boo ko yokkee il faut nga xam yokkute boobu nan nga koy liggéeyee. Mhm. dañ ne ñun ceeb lañuy bëgg a gën a yokk daaw dugal nañu sept mille tonnes semence certifiée diggante Kaffrine. Fatick ba Casamance pour mbeyum nawet 7 7000 mhm. tonnes. Mhm. ren dougal nañu 10 000 tonnes té mun na am sax ak partenaires yi nga xam dañuy jappalé mo egg 11000 xam nga bo joggé 7000 ba 11000. Mhm. donc vraiment bo waxé né dama bëggone 1 million de tonnes pour nous, 1 million 500. war nañu Si vous avez gëm. boobu tamit séddale nañu ko ba euh, euh, ñi koy liggé ñu ngi koy jiw. président aussi xam nga daaw man bi ma ñëwee mesure bu gën a am importance bi ma jël. mooy dama wàññi subvention engrais ak gerte. donc prix bi dafa gënoon cher pour béykat bi. mu ne ma comme que ci période mbas lañ ñëw lañ nekk. donc dama bëgg nga gën a jàppale béykat yi. li ma teg yoon ci subvention 10 pour cent yi ma indiwaat ko donc loolu moo tax. prix gerte dafa waroon yokk yokkul. prix engrais moom dafa wàcc maanaam saaku bi wàññeeku na 1000 francs wala 2000 ba 3000 ça dépend euh, le, maanaam formule bi nga jënd loolu boo ko xayma dafay mel ni Sénégal euh, président de la République mayaat na béykat 5 milliards ci subvention d'accord xam nga wax naa la yokk nañu jiw ceeb mhm. engrais aussi ñu yokk ko lool mhm. daaw 100 mhm. 000 tonnes la ñu yóbboon ci monde rural bi ren dinañu yóbbu 150 000 te génn wàll bi yóbbu nañ ko déjà

Je suis le 23 juillet je nga le 24. Mm-hmm. dem ci kuréelu euh, yi. Mm-hmm. di sakku, pour nous am ren kimi li ñu am. Mm-hmm. ak 1981 donc nawet bi. ni mu man de gis donc effort budgétaire du président def ak ministère de l'Agriculture. agriculture def gëm nañ ne suñu programme boobu résultat bi ñu doon xaar. Mhm. dinañ ko am incha allah. Mhm. te bu ñu ko amee waxuñu Sénégal dina am souveraineté alimentaire. Mhm. parce que loolu beneen mbir la souveraineté mooy. <laughs> da ngay doo xiif ren doo xiif dewen ba voilà. mais sécurité alimentaire au moins pour ñu am ko déwén. Mhm. lolu gëm nañ dinañ ko am. Mhm. ci wàllu euh, sécurité alimentaire euh, la mo war wara nek manam taxawayu exploitation familiale yi ak nan lañ mëna jappalé manam maanaam euh, béykat yi mu xamé né Sénégal mbéy mi ci gëna a bëri dafay aajo ci ci ci manam ci taw bi mo ñu lu wax les les les grandes cultures. oui oui non xam nga comme ni ma la waxé mhm. exploitation familiale bo xolé ciép ay jigen ñokoy koy ci Casamance presque 80% du génie cent jigéen yi la. Mhm. loolu moo tax ceeb semence yi ñuy joxe. Mhm. indi halis pour jot ci dañ la jox semences kilos mhm. amee kilo semences. On boo góobee nga delloo kilo ak genn wala padi. mais loolu kilo ceeb. semence boko ko normalement di nga ci am kilo. donc c'est presque maye donc c'est pour aider les exploitations familiales d'abord parce que comme nous il faut que soit ñu autosuffisants. bu ñu produire ba mu des nag bu ñu auto autosuffisant yi ba mu des mhm. li ci des ñu jox ko euh, maanaam euh, ñu jaay ko ñeneen ñi pour ñu am autosuffisance globale mhm. monsieur le ministre mbas mi également tam day tax ñu maanaam tiré ci lu ñuy wax ay ay ay leçons tey ci wàllu mbéy mi tey lan la ñu war a mën a jël comme comme maanaam tiré ci ay ay ay ay leçons ci mbas mi ngir Sénégal gën a mën a yoxanal lu ñuy wax wàllu mbéy mi bañ di gën di dépendre ci ci ci ci ci waa bitim réew waaw ah, comme ni ma la waxee xam nga Sénégal yàlla daf ñu may mbas mi bi mu ñëwee dafa fekk programme yi Macky Sall euh, teg mhm. ci wàllu équipement agricole ñaari junni tracteur yi mu dugal moissonneuse ëpp na téeméer mhm. moo fekk moo tax mu fekk suñu mbéy mi programme yi ma mën def nii mhm. pour espérer que déwén dinañu passer trois mille tonnes ci céréales ñu mu mën a sinon kon musiba day am

Mhm. c'est le programme global. Mhm. mais lui programme national autosuffisance en riz. Mhm. Ben Prakas, mais volet voilà. Euh, bi na ci ay voilà est-ce que tay ji manam wala xel bok meuna bi dina dina dina dina la wax ci gis. le 15 juin. Pour bo xol culture presque maintenant, am comme ni ma la daw presque zone nord. après tabaski mois d'août. lañ commencé di ren. gëm nañ le fin juillet presque affaire diou mom presque ay gerte dugub dina Sénégal. te presque amul pause pluviométrique. Mhm. bari machallah mhm. te météo au noonu lay demee ba ci fin ba gëm nañ ni vraiment nawet bi Sénégal war na ci espérer production exceptionnelle. Mm-hmm. mbéy mi nekk na bànqaas bu am solo ci wàllu koom-koom suñu koom-koom tey su ma doon laaj tey euh, nan la suñu euh, mbéy mi maanaam tëddee comment elle se porte l'agriculture du Sénégal tey lan nga may tontu monsieur le ministre. waaw mais président de ndax am na am na ay mbiru des yi nga war a mën a gën a yaxanalaat wala tey nu nu muy tey tëddee tey. Mm. li ma bëgg a wax mooy. Mm-hmm.

Sénégal bi président un plan de résilience économique. Mhm. pour résister. Mhm. c'est pour être résilient. Mhm. Nous nous nga nous problème Nous pour nous parce que nous Nous des métiers Nous presque chômeurs etc. Nous programme de relance économique c'est ce que lañ ci yakar mhm. axe numéro un pour suñu programme de relance de l'économie nationale pourquoi mhm. parce que xam tourisme dépend presque ci Sénégal mhm. il faut que touristes ñëw xam heure bi pour nga joggé sa il faut nga am vraiment euh, bu mais suñu mbey mi suñu ngi yalla bi mu ngi ñu yalla mu ngi ñuy jox taw bu baax mhm. naaj bi mu ngi ni Sénégal def nañ ci suñu budget effort bu mag vingt milliards de plus mhm. loolu moo tax gëm nañ ni la agriculture ni mu doon tirer croissance mhm. mais dina gën a fës encore pour relance économie sénégalaise relance économie sénégalaise mu ngi war a jaar ci mbéy

Donc, ce qui loolu l'agriculture. L'importance agriculture importance c'est devenu encore plus important c'est devenu même une question de sécurité nationale ce mhm. moo nous ñun suñu programme bi déjà wane campagne Si bëgg avons une production céréalière pour 3 millions de tonnes loolu nan lañ que nous avons fait. Euh, euh, semence certifiée yu baax yi ñuy joxe euh, ci béykat yi yombal la leen ko mhm. yok engrais pour yok suñu rendement mhm. matériel agricole bi fi nek machallah 2000 tracteurs ñew nañu mais il faut que ñu yok ko aussi mhm. président de la république lool moo tax d'ailleurs mu jëlan dogal matériel bi ñu amone yépp bi nga xamné c'était matériel subventionné à 70 ay motoculteurs ay décortiqueuses aériennes ay batteuses etc. nee na may na ko jigen ay xalé yi nga xamné ñu ngi ci mbéy mi donc lool moo tax ñun vision l'agriculture sénégalaise bi tay dafa agriculture de souveraineté alimentaire donc il faut que ñu yok suñu production donc il faut que ñu yok ay aménagement il faut aussi que ñu doublions ci secteur privé parce que kuy bay pour Sénégal 80 dañuy bay pour dundu hein ah. sóoraale wu ñu ñoom dañu wara bay pour dundu pour dundal yow mi nga nek Dakar. mais il faut que ñu am ay acteur yo xamne c'est des privés loolu moy sen job produire lu bari bari diko jaay ci Sénégal fi loolu mom buñ ko amul duñu am autosuffisance ci lolu lañ nek loolu moo fi ba fan yu new dinañu gennat suñu nouveau programme d'autosuffisance manam prakas bu bes bo xamne ci lolu lay dox Mm-hmm. nga mit eh, monsieur le ministre ndombal tànk ca eh, diwaanu Kolda ban taxaw nga fa am ci ci walu mbassmi ak taxaw nga taxaw tamit fofu eh, béykat yi wa wa Kolda yi. waaw pour mbassmi mi. Mm-hmm. xam nga ni bu mbass bi ñewé ñun ñep dañu gis taxawaayu président de la République. Mm-hmm. dafa woote vraiment l'union sacrée pour ñu xex mbas mi. te loolu jox na résultat. parce que comme ni may wax li ciow bi bare bare. munoo génn ñaari dëkk ci àdduna bi nga ne ñii ni ñu xeexee mbas mi moo gën mhm. Sénégal mhm. statistiquement mhm. loolu munoo ko donc ñu ngi koy féliciter loolu président ñun tamit nag loolu dañu dem di ko répéter suñu dëkk man bu ma demee Kolda depuis le 14 mars xam nga man lañ njëkkoon confiné fii Sénégal bu sama confinement jeexee le 14 mars dama dem Kolda xamal leen ne mbas mi lu dëgg la déjà day reyaate dañ ci war a moytu te bu ñu en tout cas suivre lii médecins yi wax experts yi. Mhm. mun na am ñu génn ci. yàlla dafa def nag Kolda macha allah euh, ba tey ay quelques cas la ñu am kaa yi ñu amoon ci suñu hôpital. Mhm. ay cas importés lañu ñu maanaam ay sénégalais yu demoon bitim réew bugg jaaral foofu ci frontière yi ñu arrêté leen jàpp leen fekk dafa dañu am mbas mi. Mhm. yàlla def sax ñu faj leen ñoom ñëpp ñu ñibbi temps yi rek. lañu commencé am cas am nañu benn cas té koku dafa faatu. té encore déggaat naa ci communiqué bi ko amaat nañu benen cas. mais ñaari cas ñetti cas bon mënoon na bana baña am mais mm-hmm. en tout cas wax mën nañu wax né Kolda pour le moment c'est c'est une région un peu préservée. Mm-hmm. xeex bobu ñun ñëpp doomu Kolda ñokay def du man kese. Mm-hmm. na man may ministre bi mais dama ci and ak responsable yëpp. maire Kolda mu ngi def li muy def ñoom Mame jaawoo Diao ñoom Sanoussi Diaye ku nekk li nga mun yaa ngi koy def te loolu la ñuy xaar ci responsable yi mhm. te damay joxe aussi benn message léegi parce que xam nga ni tëj ay dëkkam presque amul benn pays bu ko mën lu ëpp weer mhm. gis nañu Europe lañu confiné woon totalement tëj seen dëkk mais tijji nañu parce que économiquement c'est pas tenable. Mhm. Sénégal am na am nañu fii ay mesures kenn du traverser région dem feneen yenn saa du jóge sa département dem feneen. Mhm. mesures yooyu dañ ko assouplir dañ ko assouplir parce que sinon beneen y a bu yu gën a garaaw la am. Mhm. économiquement. comme ni may wax mbas comme ni ko suñu militaire, yi on ne nous on ne nous déshonore pas. mais mbas il va tuer quelqu'un certains d'entre nous mais il ne peut pas nous déshonorer nous déshonorer mooy lan mooy nga nekk euh, kilifa dara jotu le ñun la toogal ce kër te après doo am dépense loolu mënul À temps nous nañ fait deux mois kenn du dem juma xam ni Sénégal même mu guerre ñu ñu dañuy larguer Sénégal bombe gars yi dañuy dem juma donc je def fort Le comme que léegi commencé nañ comprendre mbas mi maanaam xam nañu ban mesurien ñu war a jël pour que ñu mu bañ a law maanaam da ngay takk masque fooy dem nga takk masque masque boo nar boo boo amul vraiment yitte bu rëy bul génn sa kër ñu wàññit di dem di ci ay foule yoo xam ne mhm. euh, dañ fay daje te ñu bari fa geste barrière yi ñu respecté ko mhm. Et lolu xam nga ñan ñoo wara a gën vraiment góorgóorlu ci lolu moy la jeunesse. Mhm. parce que gis nañu bass mi mën na jàpp ku ne. Mhm. muy prince bi muy roi bi muy jeune bi muy mag bi. Mhm. mais principalement. ay mag yi lay rey. ay plus de 60 ans 90 ñi faatu ay plus de 60 ans manam suñu papa yi suñu maam yi ñoo ci faatu. Donc finalement, la jeunesse, elle doit prendre conscience de ça. C'est qu'il ne faut pas qu'on assassine nos aînés. C'est ça la vérité. Il ne faut pas qu'on assassine nos aînés. da ngay dem yow yaa ak sa forme tu es jeune nga ne du masque. nga am un mi tu es asymptomatique. nga ñibbi sa kër wàllu sa maam sa papa modèle. dee. loolu c'est une responsabilité énorme dañ ko aussi

yóbbu basmi mbas mi aini law fa mhm. faat fa ay nit ñu bëri mhm. yow nga ñibbisi mhm. nga aussi c'est des responsabilités individuelles ku nekk loolu da ko parce que transmission bi du mën maa wax la tëddee ay médecin ñoom professeur Moussa Seydi etc cetera ñoo ñoo nga xam ne loolu dañ seen xam-xam dafa màcc ci loolu ñooñu wax leen masiba

Euh, après négociation samay natango ma len di félicité mhm. maa ngi rafetlu décision bi nga xamné mom le président de la république mujj jël ba wal Ndengler tay ñu ngi ji seen gerte sen dugub pour seen nawet. Mhm. après ñu trouver solution. xam nga pression foncière c'est vrai région de Cap-Vert la gën op xam nga fi mhm. <laughs> mais fi ay bët Sénégal ñofi fi bay béy ay légumes et tout hein. mais population plus muy dem plus y a. Euh, de l'urbanisation, ce qui n'est pas bien pour l'agriculture. Mais aussi, nous wax nit que donc la pression euh, foncière dafa femme, il faut que nous nous réfléchir ci président chaque fois daf koy wax commission pour le mhm. quelques années en tout cas dina fexe ba loolu mu baña nek nekk par exemple source de problème au Sénégal amna na ay dëkk xam nga guerre yu bari ci àdduna bi ah. mhm. des fois problème dox ak souffle ah. mhm. donc lolu il faut au Sénégal ñu dalal suñu xel baña politiser débat bi. Mhm. bañ ko passionné ñu trouver solution yo xamné ne gën Sénégal mais bo xolé aussi comme ni ma ko waxee sank investissement privé. il faut que mu ñew ci mbay mi bu ñu buggee am yenen résultats yi Sénégal Sénégal on n'est pas un pays particulier ah. adduna bi mhm. ñi am résultat ba am autosuffisance sécurité alimentaire. Mhm. dafa am ay borom doole. yi nga xam ne dañ ñëw investir. liggéey ci dundal mbéy mi. yi nga xam ne du ñu ministre de l'agriculture agriculture mu may leen jiw ministre de l'agriculture agriculture mu utal leen ndox ñoom ñoo def investir ko parce que Sénégal. ministère de l'agriculture agriculture mënul jox. jëpp jiw ñëpp jiw jox ñëpp engrais. mais lolo il faut que ñu def ko ci anam yoo xam ne diisoo bu bu mag mooy am diggante investisseurs yi ak population hmm. parce que population bu ñu ci gisul seen bopp mais investisseur bi après a ñàkk. Hmm. parce que ñoom dañ ciy retourné wu te xam nga population bi c'est difficile quand même d'aller contre la volonté populaire. Hmm. donc ay waxtaan la ñu war a def xool zone yoo xam ne amul densité population bu comme le Ferlo mais Sénégal il y ay côté mais presque des milliers d'hectares. y mhm. a ay villages. Mhm. ñu le gouvernement bi nan aménager. Mhm. pour que les investisseurs privés dem feu de ci mbay mi. te là euh, ben village village. parce que aussi il faut que les gens comprennent que nous sommes dans le cadre de la loi du domaine national. Il mhm. ne faut pas que aussi les gens ils exagèrent. En tout cas waxtaan war ci mhm. ministère de l'Agriculture, agriculture parce que tant que nous aussi par exemple pour jox pour possibilité Mme tabax ay kër wala ak de donc mhm. nous, nous en tout cas euh, importance ñun euh, pour nous

vraiment jeunesse puis dafa engagé ay enseignants. ay jeunes yoo xam ne musuñu béy ñëpp béy nañu vraiment. loolu ku nekk mun nga ko seede. ni ñu songee mbéy mi ren région Kolda te gëm naa ni loolu am partout. Euh, bu yàlla defee ba ñu dem ba ci fin bi dinañ gis changement ci ci mbéyum Sénégal. ma leen di féliciter ci euh, aussi am nañu ay programme parce que wax comme ni ma ko waxee ñu bari léegi am nañu seen bac. wala seen licence hein boo ko waxee kaay leen béy nga jox leen ngoos-ngoos wala je sais pas euh, matériel rudimentaire du ñu dem. loolu moo tax modernisation de l' agriculture bi nga xam ne boobu président di woote. ci lañu ñu liggéey pour que jeunes yi ñu mën a gis seen bopp ci agriculture ñu xam ne loolu job la comme job nekk instituteur wala leneen. Mhm. te da nga ci vraiment tekki. Mhm. wala gën a tekki sax fonctionnaire.

n'est que le plus grand pourvoyeur d'emplois descend décent au Sénégal ci lañu liggé. nous avons li ma gis né président aussi cohérence programme pour rendre attractif le monde rural Madame, comme ni may wax bu il y ngi ci sa village am nga robinet am nga courant mën nga sétane classico foofu té sa revenu ñoo pour revenu instituteur wala professeur lycée wala professeur université comme man mais lu ngay jógee fofu di dem ville dara donc loolu moo ay PUDC ay piment ay yenen programme yu président def ñu am solo loolu dina permettre que le monde rural mu nek zone bo xamné ne mën nañ fa dund te mën nañ fa tok même bu ñu amee xaalis solo monsieur le ministre maa ngi lay jaajëfal jërëjëf ma leen di remercier di leen ñu ngi ñu ngi jublu ji ci walum euh, feetu tabaski bi xanaa ñu wax la rek dewe ne déwénati ngeen bal ñu ak mm-hmm. comme ni ma ko waxé nak mm-hmm. Nous ne pas pas masque bu vraiment pas obligatoire Nous vraiment def ko parce que mo fait affaire bi am dimension encore bu ñu ay nit wala ñu jël ay dogal Sénégal suñu population responsabilité individuelle c'est une responsabilité individuelle ku nekk vraiment nga jël potentiellement mun nga vraiment un tueur mhm. et ça jërëjëf monsieur le ministre. entretien kon nak jaxna mu nekkon euh, suñu invité mom professeur Moussa Baldé nekk ministre agriculture ak équipement rural donc kon nag yaa ngi jëf ci seen teewlu dig dajee ci benen numéro ak benen invité toujours ak ci Dakar Actu yaa ngi jëf ci sen téwlu